kon ni ngeen ko gisee campagne yi commencé na élection yi ñuy jëm ci élection yi candidat yëpp a ngi baatal campagne ci région Sénégal bu ci nekk ba tax na tey ñu ngi fii ci Kattindu ci ajaratu soxna Ngone Fall Baro soxna si ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay ba yaa ngi jàmm. ah ñu bëggoon xam ni sa koñ jamono ji passé fal nañ fi ab comité électoral euh, ci quartier bi te coordonnateur bi mooy monsieur Thioro. léegi ñu buggoon nga wax ñu exactement lan mooy sa sentiment ak lan nga yaag xalaat ci fal boobu ñu ko fal. waaw waaw Mettis TV maa ngi leen di nuyuwaat di tàmbali émission bi bisimilah rahmaani rahim di wax ne question boobu euh, parce que ku ci nekk xam nga ne bu ñuy dem ka élection faaw ay comité électoral taxaw keroog taxawal nañu am comité bu dugg ci discipline ci respect. ci ci ci yoon ñu jël suñu grand frère Mamadou Thior nga xam ne moo ko yàgg DG ñu teg ko ci taftal ci responsable képp kuy responsable bu rek ñu taftal la ci daanaka noonu lañ ko doxalee soog cee teg ay secrétaire général soog cee teg ay trésorier soog cee teg ay commission des femmes des jeunes ak sa commité éle commission électorale noonu daal lañ ko doxalee ci jàmm ak euh, salaam waaw ci kaw loolu dégg nañ président de la république monsieur Macky Sall mu nommé képp koo xamante ni maire nga ci région bu ci nekk président comité électoral commune yow lan moo ci sa xalaat ci loolu. man dama def lu rafet lu lool parce que ci ni ñu ci liggéey bi nii ñëpp mënuñu tricher faaw kenn tricher te boo duggee ci dëkk faaw nga jaar ci monsieur le maire. dëkk boo dugg rek il faut nga passer par monsieur le maire donc bu président Macky Sall jëlee les maires jiital leen ci comité électoraux yi duñ def lu rafetlu ko parce que daf ñuy yombal liggéey bi maire yi ñoo xam quartier yi maire yi ñoo xam délégué de quartier yi maire yi ñoo xam responsable yi maire yi ñoo xam sage kon loolu defe naa pour bugg liggéey bi jaar yoon moo tax lu def ah, ci kaw loolu dégg nañ président de la république du Sénégal maître Wade def benn déclaration mu ne day saboter élection yi ba tax doomu aadama te nga yor carte d'identité mën a voté nga lakk sa carte d'identité ndax yaakaar nga ni loolu mën na woy te mën na am. loolu man maître Abdoulaye Wade dañ koy jàppee comme suñu maam ndax moom daf fi nekkoon taw selon nekk fi temps yi Abdou Diouf ànd feeg Macky Sall Macky Sall jël ëlbatiku mu mu mu kii ko Macky Sall ëlbatiku def partem daal di ñëw jàmmaarloo moom gañe ko donc moom noonu rek la mun a waxee. ndax ku ci nekk xam na ne carte euh, d'identité affaire citoyen la képp kuy dox ci àdduna da nga war a yore carte d'identité carte d'identité nit ñi dañuy caaxaan mais nekkul rek pour élection carte pour sa kaaraange la yow tey jii fopp fooy dem da nga war a gànnaayoo sa carte d'identité ci sa biir man de maa ngi nii du ma dox ma génnee ci buntu kër gi sax dama yore sama carte kon bu jëlee élection yi teg ko ci danañ lakk carte d'identité defe naa loolu waxu maam la rek man vraiment wax jooju man considéré wu ma xam naa ne benn citoyen du ko topp ci loolu ndax loolu vraiment waxu mag la ñun Ablaye Wade dañ ko jox cër comme ni ko suñu kilifa joxee cër mais loolu defe naa ne ñun duñ ci àgg parce que loolu waxu caaxaan la ci nekk soxla nga sa carte d'identité pour ëllëg ak si biir c'est pas vote kese kese ngay doyee carte mais soxla nga ko leneen loolu daal la amoon ma si tontu. waaw soxna si en tant que. responsable politique fii tundoo nan nga fas yéenee doxalee sa campagne ngir falaat président de la république dès premier tour ci élection yi. dañu que candidat boo xamante ne nii mel ne si juróomi candidat koo xamante ne tolloo tax ñun vraiment suñu affaire mettiwul te xam na ne dina yomb a liggéey ndax fii ku xam Fatick xam ne ñoom Macky Sall rek la ñu gëm Macky mooy seen seen seen seen seen candidat di wax ne man ni ma koy doxale mooy suma ma yeewoo du xëy. dugg ci kër yi parce que par président Macky Sall dafa ne ñu def porte à porte na ñëpp ñaq moo tax man ci consigne yooyu laay doxee bu ma xëyee damay sangu bu ma dékkee daal di dugg ci biir koñ bi këroo kër tànkoo tànk fu ma gis sax foo xamante ne nee nañ ma fii sax euh, xale yi nangam sangam man dama fay dugg rek aborder leen te bi ma ko dalee dox ba léegi bi campagne bi commencé ba léegi day la septième jour je crois amuma ci benn problème fu ma dugg dañ ma ne tëdd leen ngeen nelaw parce que Macky Sall li mu def Fatick fii kenn koo fi def bi mu commencé ba léegi barki démb boo jaaree dañ ma toog ba jóge koo ci benn meeting ñëw ubbi robinet yi xale yi dama taw si taw si tàccoo ndox mu neex di xeeñ nga xam ne ñun bu ñu nekkee fële ci Dakar dañu rus a reetaan ndax bu ñu reewee ñu ne yow xanaa Kaolack nga dëkk man dama ci xuloo ma ne lu tax ngeen ma nga Kaolack nga dëkk ñu ne sa bëñ yu maroo léegi président bu ñu teggi leen loolu suñu sët suñu too bi seen bëñ yi commencé di weex ñun jigéen ñi ñu bu ñu saboo ci ndox mi leer vraiment dañu koy kontaane dañ koy gërëm di ko sant président dafa def ci dëkk bi loo xamante ne vraiment xajul ci émission bi ba bëgg sax ëllëg ak si ngeen invité ma ba ñëw tegal leen li Macky Sall def Sénégal parce que du Fatick rek fépp la ko def set fu doomu aadama di yëngu koo Fatick parce que moom dafa def rupture ndax bu jëkk dañ daan gis nit yi dañ doon def Euh, boo faloo rek da ngay jël ñi nga xamante ne ñoo gën a nanti rek di leen yokkal ñuy gën a nanti moom nag dafa dem ci base ba dem ci ñi nga xam ñooy néew ci joole ci jéem a élever seen niveau de vraiment xajul ci émission bi mais man noonu laay doxalee suma campagne bu ma defee euh, porte à ba 2 heures ma ñëw sangu sangu ba pare daal di dem ci comité électoral kat tamit xool seen euh, seen seen programme ñu àndandoo dox programme boobu de 6 heures ñu dem si communal bi. seet meeting yi nga xamante ne def nañ ko ñu dem ànd ceeg vraiment man loolu mooy sama sama activité ci campagne bi te fas yéene koo def nag ba le jour J le wax naa ne ñëpp bu ñu togg sax añ na ñëpp dem voté ji parce que nit ñi dañoo bëgg a tàggoo gars yi parce que koy diiroo da ngeen mbagg ak Sall emut ak ñoom mbagg midi dinañ tàggoog ñoom incha allah à plus de 54 pour cent dina ko romb sax di tàgg loolu laa ñaan yàlla di ko di gëm di ko sant di wax ne yàlla yàlla jàppale ñu yàlla may ñu kattan ba jour ba lu yeewu ci sur pied mën a doxal suñu activité di leen gërëm di leen sant. Ah, soxna si Mindiss TV gërëm na la sant na la mbokk yi na ko gisandoo ñu ngi woon ci seen émission le rendez-vous des élections ñëwal fii tey ci quartier Ndou ci kër ajaratu soxna Ngone Diop Baro nekk responsable politique. fii ci koñ bi ñu leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah. bëggoon naa nga laaj ma leneen question. Ah. bëggoon naa nga laaj ma man nan laay apporter sama campagne waxoo ci. waaw laaj ko ko directement. Ah, laaj ko ko directement.